gars yi nañ nañ ñu may nañ distance balaa ñu ñëw wadd fii waaw waxtu bi bariwul nag liñ fi liñ fi dese daa am ku ma leen bëggoon a il est le frère de Mola Morgan mi nga xam ni mu ngi jàpp ci combat bi bu baax nekk tamit ancien policier amoon message bu mu bëgg a jagleel ses ex collaborateurs au Sénégal. asalaamaaleykum asalaamaaleykum l'effort fait l'effort la preuve par les preuves mourir ou ses choix mourir pour la patrie mourir pour le Sénégal on est fiers d'être sénégalais ñaari facette laay rekk moo la Morgan la parce que en fait àndut ak état. commencé naa kaas di wax li nga xamante ne nii da ngay jotee muy génnee fa pale ñu barakaane suñu kër di ko jéem a lépp passé na ñoom ñoo ñuy jàngal ñun nan la ñuy reyee nit ñoo ñuy jàngal nan la ñuy taalee yéen a dégg Ousmane Sonko ku ko laal nanu laal police gendarmerie Sénégal dama bëgg ñëpp nañu ma déglu ñoom laay waxal j'ai fait neuf ans à la police neuf ans j'ai dit neuf ans à bi may jógee Sénégal maa ngi mujj nag brigade recherche bu Kaolack commissariat central li may wax bu dee ñu ngi koy dégg ma déglu bu baax maa ngi tudd Idrissa Niass ma ñëw tey France xam naa yàlla dimbali na ma moom boo fa newoon tey dinañ ma informé sama grand frère mais non non maa ngi wax ak yi ak gendarme yi que ay sénégalais lañu lavage de cerveau bi ngi def suñu bopp amul existé wul bu ñu naan les les civils ce sont des wul existé wul policier bu ki kër nga jógee boo sumee dënnu bi civil ngay doon tey maa ngi nii ku ma mosoon def lu bon xëy na Sénégal tey maa ngi woo fi maa ngi sol tenue civil nekk ak yow fii nanu bàyyi suñu xel bu baax a baax ci lu li ñuy def loo police bi gendarmerie bi je lance une appel solennel aux officiers les officiers je dis les officiers avant démb ay étudiants la ñu woon dañoo jàngi woon ci école yi jàngi ci université yi génn tey yàlla dogal seen jàng may la ñu nekk ay bu ñu nangu ñu def loo leen lu bon baaxul gars yi ñun tamit dañ leen pare Ousmane day nekk président incha allahu amul salaire baax seen salaire weesuwul cent cent vingt ko pendant deux ans Sénégal parce que Seydina Mohamed onze mille quatre cent dix deux ans avant ma nekk kay luñ leen di defloo xam leen ko luñ ñuy defloo nañ ko xam maa ngi leen di rek lancer di wax ñëpp kay Ousmane Sonko bu mu dem nañ leen taxaw def bouclier. man de je suis prêt barki Serigne Bamba bu tàgg sama ticket dem Sénégal jox a fa sama bakkan métier doole bi ñu leen jàngal moom ma jàngal te mun naa ko jàngal keneen bis bu ñu paree ñun tamit nañ leen pare dañuy jàngale ñu dem suñu biir. système bi ak technique bi buñ ko wax fii de gars yi pare dañ leen pare li la mooy wax daa leen def bëggee. merci beaucoup Euh, juste un message à lancer pour euh, Aliou Sall. Il y a les journalistes qui t'attendent derrière la tente là pour euh, les interviews. Aliou Sall. ñu ngi lay wër gisuñu la. donc. Euh, gatsa gatsa. Gatsa gatsa. voilà une minute gars yi ndax euh, li ñu dese ci waxtu bi bariwul. monsieur Amar. damay joxe juste un message mooy les primo votants